jafé jafé yi mën naa bari na lool mais rawatina gox bi ñu dëkkee ndax bo xolé gox bi ñu ci côté éducation jeune bi amul école primaire té loolu nek na jafé jafé bo xamné parents yi ñun ak ñom dañ koy partager à tout moment parce que bu féké sa parent il n'est pas un riche yow les enfants duñ mëna a dem école jang fa régulièrement loolu nek na jafé jafé deuxièmement ñuy lancer un appel solennel aussi à son excellence soutenir la maire parce que bi mu ñëwee gis nañ né zone bi dafa manqué lu bari mais euh, am na ay jéego yu mu def ba defal ñu fi indil ñu fi ki nga xam ne mooy benn ICP mais n'empêche que nañu jàppale ba plate technique bi gën a yaatu lépp gën a kii ci côté santé boobu ci mbirum environnement it mu gën ka dooleel euh, pour que ñu mën a am un assainissement boo xam ne dina soulager population bi pour que bu tawatee parce que lool it nekk da loolu lépp ci zone bi ñu dëkkee la motif yooyu yëpp mën naa ne wala doléance yooyu wala urgence yooyu moo ñu poussé woon à que ñun ñu porté woon suñu candidature waaye vu que dans son programme moom mu ngi ciy def ay jéego te it dañ ciy teg suñu parce que conseil municipal lañ moo waral ñu décider renoncer après nag ànd ak moom jàppale ko dooleel ko ba fal ko nag ci kàttanu yàlla.